waxtaanu suba bi ngeen di wéttalikook ñun delsuwaat nañu beneen yoon fas yéene ànd ak yéen xam ngeen ne jamono bañ doon tàqalikook yéen ñu ngi yemoon nag yéen ci fa yàlla suñu boroom tabaraka wa taala di baaxee yonent bi sallallahu alayhi wa la nga xamante ne mooy njort njortu la fa nekk ci ay bakkaar la suñu boroom subhaanahu wa taala muy tëndekuloo xeet suñu téere bu mag bi di alquraanul ñu bàyyi xel waxu boroom xam-xam bi di xasanul basri rahimahullah nee ibnu aadam innama anta ayyaamun kullama dahaba yawmun dahaba baaduk xasanul basri rahimahullah mooy wax ak doomu aadama bi di ko laayee biir di ko jox ay nasihaat nee na yow doomu aadama bi xamal ne bés yi ngay dund mooy sa temps xamal ne bés yi ngay dund fii ci àddina mooy sa waxtu ba tax na danga war a bàyyi xel ne kullama zahaba yowmun zahaba baaduk xamal ne bépp bés ba ñëw jaar jàll xamal ne leen wàññeeku na ci sa dund bi am na la nga mànkele di gën a jege dee moo tax waxtu bi ñu toll ni képp ku suñu boroom tabaraka wa may nga yeewu ci jàmm mu delloo sa ruux nga daldi fekkee bés ba ngay dundu nii la la war mooy la yonent bi jàngalee nee na baat ya nga war a tudd mooy alhamdulillahi alladi ahyaana baada ma amaatana wa ilayhi nushur cant ñeel na buur bi yàlla mi nga xamante moo ma delloo sama ruux gannaaw bu ko jëlee ci nelaw mu doon dee bu ndaw waaye bu ñu waree dellu ci moom dong lañuy dellu bu ñu faatoo ci moom lañuy dellu kon wa ilayhi nushur boobu nga déggee ci ne duñu dellu ci keneen wala duñu dellu ci feneen fudut fa moom yàlla tabaraka wa démb am na nañu fanaana ndoor ndogalu yàlla leen fi jële seeni appa jot ñu wuyu ko ci woote ba mu lan woo ñun ñu fi yàlla bàyyandi sant yàlla dongo ñu war ndax munoon nañoo boole ci ñamu woowoon biig ci guddi kon bu ñu fi bàyyee ba ñu fekkee tey war nañ ko sant ci ñaan ba ñu suñu yonent bi tegtal ne bépp jullit bu yeewoo ci nelaw danga war a sant yàlla ci baat bi ko defee ñu bindal la jiw diine joo xamante ne nga def lu ndaw ñu bindal la yiw ju tollu ni doo ko amee ci feneen fudut ci jëf jooje kon dañ ne jëf woowu ëpp naa sàggane ndax ki ñu ko tegtal mooy ar rasulul mustapha sallallahu alayhi wa na la boroom xam-xam di xasanul basri wax rekk ne yow doomu aadama xamal ne bés yi ngay dund mooy sa waxtu bés yi ngay dund mooy say temps ba tax na da nga war a bàyyi xel bépp bés ba ñëw jaar jàll am na lu wàññeeku ci yow kon fexeel loolu di wàññeeku mu yóbbaale lay lay njëriñ ëllëg bés penc mu doon fàggute fu yiw ba tax na boo yeewoo nelaw ci waxtu wi amuloo dara li ngay def lu dut nga ñaan yàlla suñu boroom mi la may xéewal nga daldi yeew yi léegi ñu ngi leen di fàttali na yéen a ngi ànd ak Rewmi FM 97.5 ci waxtaanu fajar ñu bëgg a togstal ci waxtaanu démb bi tey ñu bëgg ci toftal ngénneel ba nekk ci nodd ci jamono yañu weesu ci ay waxtu yu néew noddkat bi nodd na loolu mu doon nodd mu yàlla di wax allahu akbar allahu akbar bi keroog mu àgg ci ashhadu an laa ilaha illa allah noonu la koy jàppoo bi keroog mu àgg ci ashhadu anna muhammadan rasulullah bu àggee ci hayya ala salaa nga di wax la yonent tegtal ne loolu ngay wax boo àggee ci xayaalal falaa nga daldi wax la yonent tegtal ne noonu ngay wax kon nga déggee ci ne ndekkete noddukat bi buy noddu mboolem waxtu julli ya nekk ci bés bi yow jullit bi boo déggee noddukat bi yëkkati noddu bi danga ko war a topp ba tax na ñu fas yéene dégtal leen xadiisu abdullahi bun umar radiallahu anhu abdullahi bun umar radiallahu anhu nee na anna rasulullahi sallallahu alayhi wasallam qaal ida samictum almuaddin faqulu misla ma yaqul tumma sallu alayya fa innahu man salla alayya salaatan salla allahu alayhi biha asharan tumma sallu allaha li alwasilata fa innaha mandilatun fi ljanna laa yanbagi illa li abdin min cibaadillahi wa arju akuna ana huwa fa man sa'ala lil wasilata xallat lahu shafaatan rawahu muslim mbokk yi yann jàmmi yàlla nekk ci yéen ak seeni njaboot kon ñu déggee ci maana xadis bi maana bu yaatu lool waaye ñu tënk ko rek ci suñ kemtalay kattan ak waxtu bu ñu cëralee ci waxtu wi jëlee nañ xadis bi ci saxaabi bi ñu naan abdullahi bun umar radiallahu an abdullahi di doomu umar yal na ko buur yàlla gërëm nee na anna rasulallahi sallallahu qaal naka suñu yonent bi di ar rasulul mustapha sallallahu alayhi wa sallam moo ñu ne ida samictumul muaddin bu ngeen déggee noddukat bi yëkkati nodd fa quulu na ngeen wax misla ma yaquul lanuroo ni la noddukat bi di wax bi maanaa noddkat bi bu ne allahu akbar allahu akbar yow mi ko dégg di julit da nga war a wax allahu akbar allahu akbar bu ne an laa ilaha illa allah it nga ne ashhadu an laa ilaha illa allah noonu lay àggee yow ba mu àgg ci hayya ala salaa nga ne laa wala quwwata illa billah hayya ala alfalaah nga ne laa hawla wala quwata illa billah bu ne allahu akbar allahu akbar yow it nga ne allahu akbar allahu akbar bu waxee ne laa ilaha illa allah yow it nga ne laa ilaha illa allah yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne bu ngeen déggee noddkat bi yëkkati nodd na wax la nëroo ni la noddukat bi di wax comme niñ ko waxee ni sànq yenent bi nee na bu ngeen ci noppee na ngeen julli ci man na ngeen wax salaatu ala nabi na ngeen julli ci man yenent bi sallallahu alayhi wa sallam yenent bi daal baaxee nañu fa innahu li fi nekk kañ julli boobu ngeen di julli ci man moo tax mu ne fa innahu li fi nekk man salla alayya salaatan képp ku julli ci man benn yoon sallallahu alayhi biha asharan yàlla dina julli ci yow ci julli binga julli ci man benn yoon yàlla dina la ko multiplier mu doon fukk julli ci yonent bi nag mooy ñaanal ko yàlla wax allahumma salli ala sayyidina muhammadin képp ku ko wax benn yoon yonent bi nee na yàlla dina barkel ci ay mbir yàlla dina la may dina la bindal xéewal dina la tàbbil ci géeji xéewal ba mu doon fukki yoon benn yoon nga wax allahumma salli ala sayyidina muhammad yàlla sant malaaka yi ñu ñaanal la xéewal ak njéggal fa moom yàlla fukki yoon sallallahu alayhi wa sallam daal di continuer nee na summa salullah lil wasilata ngeen ñaanal ma yàlla jokk joo xamante ne moom dong moo xam nu mu mel mooy nanga ne allahumma rabba haadihi daawati tamma والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه اللهم مقاما محمود التي وعدته innaka laa tuxlifu almiaad am na yenn riwaaya ya nga xamante ne am na wuute ak bi ma jàng ni wala kulli xaalin noddkat bi bu noppee ci nodd bi yow daal na nga wax allahuma rabba hadihi daawati tamma wasalaati alqaa'ima aati sayidina muhammadin alwasilata walfadilata wa darajatan aaliya rafia wa baashu allahumma maqaaman mahmud bu la neexee nga yem foofu bu la neexee nga yeggali ko ne alliti waatahu innaka laa tuxlifa almiaad waaw yonent bi daal di wax ne fa innaha mandilatun ndax alwasila daf di kër goo xamante ne fil jannati mu ngi janna laa li abdin min ibaadillah yàlla xamal na ma ne amul benn jaam ba ko réserver amul kenn ke ko réserver yonent bi daldi ne wa arju an akuna ana maa njort bëgg naa de kër nekk sama kër ca arjanna huwa kër googu yonent bëgg na mu nekk këram ca arjanna mu ne fa man sa'ala lil wasilata képp ñaanal yàlla al mu doon jokkukaay ba may jokkale ba ma am kër googe yonent bi neena na xalat lahu shafaatin yow yeeya nga daggan na ci yow ngir ma ram la bés pénc kon képp ku bi ram bés pénc képp ku yonent bi plaidel bés képp ku yonent bi rawale bés pénc mucc nga ndax fu muy dem ngay dem fu muy nekk ngay nekk ba tax na ñaan bi incha allah dinañ ko gën a yaatal ci yeneen jamono ci waxtaanu fajar bay jaar fii ci Rewmi FM 97.5 xadis bi muslim moo ko solo kon képp ko bëgg yenentu bi ràmm la bés pénc boo déggee noddu mu mel ni waxtu bi ñu génnee nii ay ñetti waxtu ci ginnaaw ñu ngi doon waaj a julli fajar képp ku déggoon noddukat bi la mu doon noddu dangay wax baat ya mu doon wax bu noddee ba jeexal na nga wax allahumma salli ala sayyidina muhammadin boo ci noppee nga ñaan askaaru aw du'a u baadal azan ñaan ba ñuy ñaan gannaaw bu ñu nodde mooy allahumma rabba hadihi daawati tamma wa salaati alqaa'ima aati sayyidina muhammadin alwasilata walfadila wa darajatan aaliya rafia wa baashu allahuma maqaaman mahmuda allati waadtahu innaka laa tuxlifu almiaad su ko defee loolu benn la ci ñaan ñi waaye bari na yafaroot ki mun leneen nanga nga jàngee noonu comme na mu ñëwee ci yeneen riwaayaay mbokk yi yann jàmm yàlla nekk ci yéen ak seeni njaboot bi léegi yéen a ngi ànd ñun fii ci Rewmi FM 97.5 ñu àndandoor ak yéen jàkk jooju de palaasu julleekaay jooju ñu yëkkati baatu nodd yàlla suñu borom tabaraka wa dafa am ñu joxoñ ci alquran nee na ñooñu je ñooñu ñamu bëgg a tegtal nii ñamu bëgg joxoñ nii ñooñu la borom bi tabaraka wa taala ne ñooñu ñooy ñay jëfandikoo néegam ci kaw suuf di jàkk yi wala jumaa ba tax na képp ko bëgg a xam ña yàlla suñu borom tabaraka wa di joxoñ fii ne ñooñu ñooy ñoo war a occuper ñooñu laa bëgg ma sama jàkk ji nang ñu topp ci waxtaanu fajar bay jaar fii ci Rewmi FM 97 point 5 mbokk yi bu ñu demee xool ca suuratu tawba aaya 18 borom bi tabaraka wa taala mu ngi baaxee yonent bi ci suñu téere bu mag bi di mu ne ko innama ya'muru masajida allahi man aamana billahi wal yawmi al axir wa aqaama alsalata wa aata zakata wa lam yaxsha illa allah fa asaa ulaika an yakuuna min al muhtadin mbokk yi borom bi tabaraka wa taala dafa am ñaw mu seppi ci biir jaamaam yi ne leen ñii laa bëgg ñii laa sopp ñii laa safoo ngir ñu occuper sama titre foncier ba nekk ci kaw suuf mu doon sama néeg di jàkk yàlla yi ba tax na képp ku dégg aaya bi bu dee jikko yi yàlla ne ñooñu ñu lamboo jikko yi ñooñu la soxla ci néegam nañ leen bokk natt suñu jikko yi par rapport ak la yàlla tànn bu dee la yàlla tànn fii critères yi mu fi joxoñ bu dee mu ngi su ñun kon war nañoo war a mën a occuper jàkk yi bu nekkut su ñun nag nañu xoolaat suñu bopp ñu tàmbale ko ci man mii yenn képp ku may déglu borom bi tabaraka wa taala daf ne innama ya'muru masajid allah li fi nekk kañ ña nga xamante ne ñoo war a occuper néegu yàlla yi gisuloo masaajid allaahi la wa képp koo xamante ne moom la yàlla sopp mu doon ñu war a occuper jàkk yàlla yi ñooñu la bëgg wax fii mu ne bu si jiitu ñooy man aamana billahi da ngay njëkk a doon ku gëm yàlla wal yowmal aaxir nga doon ku gëm bés wa aqaama salaata nga doon kuy taxawal julli tiiru dund ñetteel bi wa aata zakata nga doon kuy joxe azaka ñeenteel bi mooy walam yaxsha illa allah boo demee bay am la ngay ragal na doon yàlla dong ngay ragal yàlla rek ngay suuraale ci say mbir yàlla nee na buur bi wa taala ñu lamboo wi jikko fa asa ulaika ñooñu de yàlla xel si na def ëllëg an yakuuna min al ñu doon ñu yàlla gindil boppam orienté leen ci siratullahi al danga bëgg yàlla orienté ci yoon bu jub na nga làmboo critères yi su ko defee nga doon ku occupé surface su yàlla ci kaw suuf si di jàkka yi moo tax mu ne critères yi yama bëgg ñu war a occupé sama kër ci kaw suuf mu doon samay jàkk yi dangay njëkk a doon ku gëm yàlla wéetal yàlla ci melokaanam ak ci turam yu sell yi ak ci melokaanam yu kawe bu ko boole ko dara bu ko bokkaaleek lenn moo tax mu ne man amana billah da dangay doon ki gëm yàlla ci melokaanam ci turam ak ni mu tegtal boppam wal yowmil axir mooy ñaareel bi da nga war nekk ku gëm ëllëg bés penc ne dékki am na ñëppay taxaw ci kanamu borom bi tabaraka wa taala ñetteel bi nga doon waqaama salaa kuy taxawal julli ci sa giiru dund di ko defee ci mbooloo ci waxtu wa ñeenteel bi wa aata nga doon kiy joxe azak ndax yàlla la ko sant gis nga fii mbokk yi borom bi tabaraka wa dafa lënkale képp ko taxawal julli da nga war a doon kuy joxe azak aaya bi presque occupé na alquran ci place yu fasante ko yu bari wa aqaamu salaata wa aatu zakaata wa aqaamu salaata wa aatu zakaata fu mu wax taxawal leen leen julli dina ne joxe leen azaka juróomeel bi mooy walam yaxsha illa allah suuraalewul kenn ci loolu mu nekkee kudut yàlla ragalu si ma demb tiitu si ma sàmba amul kenn ku mu ragal ci melokaan ba mu nekkee kudut yàlla moo tax yàlla ne ki lamboo jikko yi yemalim nii mu doon koo xamante ne du am tiitaange ci kenn ju am ragal ci dara kudut ci yàlla dong lay tiit yàlla dong lay ragal ci melokaanam bu mel bu mu noonu yàlla ne ñooñu de fa asa ulaika an yakuna min muhtadin yàlla suñu boroom xel si na ñu doon ñu jub ñu doon ñu orienté wu ci siratullahi al mustaqim yàlla ñu yàlla may ñu lamboo jikko yamu wax ni yal na aaya bi doon loo nga xamante ne dañ koy jikkowu fii ci àddina bi yàlla borom bi tabaraka wa taala ñu orienté mu def ñu ci woy ñu mu jubal amin ya rabbal alamin mbokk yi léegi suñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ñu baaxee ci hadisu abi hurayrata radiyallahu an qaal qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam abi hurayrata nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ñu baaxee ne ñu man tatahara fi baytihi képp ku jàpp bi set laab ci biir këram summa mashi ila baytin min buyutillah ginnaaw mu daldi génn këram dox ndànk jëmmale lenn ci këru yàlla bi maanaa ci jàkk yi la ko fay taxa dem mooy li yaqdiya faridatan min faraidillah ngir mu war a joxe farata ya ko yàlla faratal ci waxtuy julli nañ leen bokk déglu la yonent bi ne kooku noonu lañ koy bindal ci xeetu yiw sallallahu alayhi wa sallam na kaanat xutuutuhu ixdaahuma taxuttu xati'atan nee na dinañ ko defal bépp jéego ba mu war a jéego ci ñaari jéego yamuy def benn bi dañ koy faral bàkkaar yamu def wal uxra tarfa'u darajatan xadisun saxaxahul albani xadis bi albani moo ko wéral yonent bi neena na jéego ba muy séq daal dañ koy yëkkatil daraja fa yàlla ñu déggee ci maanaa xadis bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ci xadis abi horeirata képp ku laab ci këram bépp jullit bu dégg nodd nga jóg jàpp laab ba nga set nga daldi génn dox say tànk jëmale ko lenn ci jàkk yàlla yi lenn ci néegu yàlla yi ngir joxe farata ndax am na kuy génn këram di dem jàkk jamul joxe farata leneen moo ko fay tax yóbbu kon fii yonent bi nee na li yaqadi faridatan min faraidillah ki jàpp ci këram bi mu set laab be baax laab be set la tax a këram mooy ngir mu dem joxe farata ci farata yàlla yi maanaa waxtu julli ba mu war dem julli mu doon farata ba mu war a dem joxe ci jàkka ji sallallahu alayhi wa sallam nee na kooku de jaam boobu wala jullit boobu de bépp jéego ba mu yëkkati ci ñaari tànk ya muy doxee benn bi dinañ ko faral ay bàkkaar beneen jéego ba muy séq de dinañ ko yëkkatil ay daraja tànku ndeyjoor bi dinañ ko yëkkatil daraja tànku càmmoñ dinañ ko faral bàkkaar ba keroog muy àgg ci jàkka ci moo mbokk yi lii neexul lii lu ko gën a yomb dégg nodd jóg jàpp daldi jëmale ci jàkk yàlla yi ngir joxe ci farata droite boo yëkkati ñu yëkkati la say daraja ci kawe góos boo yëkkati ñu farala la say bàkkaar bi keroog ngay àgg ci jàkka ji ña kombe di paa ngay def ba ngay dem ñaata jéego ngay def ba ngay dem jàkka ja kon bu fekkente ne dem jàkka ja lii lañ si gó góobee comme résultat lii mooy résultat ba ñuy am ci dem jàkk kon bés ni képp kuy sàggane dem jàkk nanga nga xamee lii nii na nga xamee ne dem jàkk tiyaabo ju mag a fa nekk mbokk yi waxtaan bi jeexagul dafa fekk ni rek dañoo yegg ci fu ñu war a yëkkatee jotaay bi jébbal bërëb bi ña war a joxe xibaar yi ñu di leen ñaanal yàlla ak borom kër gi ak mboolem ñiy topp waxtaan bi ci waxtu bi yàlla ñu yàlla boole may dégg topp amin ya rabbal alamin allahuma aminna fi awtaanina wa aslih a'immatana wa wulaata umurina allahuma ihfaz bilaadana min alfitan ma dahara minha wa ma batan baaraka allahu lii wa lakum fi alqur'ani alazim wa nafa'ani allahu wa iyyakum bima fihi min alayaati wa dhikri alhakim aqulu ma tasma'un asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. wa barakaatuhu. wa barakaatuhu. wa barakaatuhu.